mbir mi mbir mu tiis la man Chérif sama xarit la woon ñi nga xamante 1978 sa Abidjan booba étudiant laa nekk Abidjan yàlla def ñu xamante fa te nu bëggante lu tax danu bokk jëmukaay Cheikh Ahmad Bamba moom su la gisee rek du toog ñaari minute te dégguloo mu tudd Sëñ Tuubaa wala wala mu tudd Cheikh Ibrahima Fall suñ diggante xóot lool man mii maa ko boole woon ak président Ablaye Wade man mii la yàlla jaarale ba mu xamanteeg président makki sàll ba seen diggante demee ni mu demee tey moom ma sunu teqali ko barki démb rekk la ma bàyyile doomam maa ko maa ko ñaanali jabar pour wane sunu diggante nu mu xóotee nit ku am solo la ndax lu tax borom gëm-gëm la gëm-gëm gu dëggu la am wuute naa kilifa yu bari yi nga xam ne xale yi dañ leen topp moom fu mu tollu daawul woon nit ñi jëmmam sëñ Tuubaa la leen daan woon dafa daan wax ni man kat mën naa xaacu ni shérif laa maa ngi bokk ci xeetu rasulullahi sallallahu waaye jaay naa loolu jënd ko taalibe ndax sëñ Tuubaa képp moo fees sama bët loolu dafa am solo dafa am solo si koo xam ni dafay jiite mbooloo te nit ñi toppe la am luñ la toppe bul leen wan sa jëmm wan leen ka tax ñu topp la sëñ laa dafa daan wax ni kat nit ñi luñ ma bëgg-bëgg sëñ Tuubaa wa tax tey sëñ Tuubaa su wàccoon àddina ma ma bëgg dox seen diggante ak sëñ Tuubaa dañ may puus na lee dem si sëriñ Tuubaa Chérif loolu la gëmoon Chérif aussi ku mënoon dimbalee la wóor na ma ni ma tey du bàyyi alal ju bari ak njabootam ndax lu mu am bokk na ak nit ñi xéewal yu bari dal naka ndax yàlla dafay def ni ba mu nekk bitim réew kilifa yu bari dañ dañ ko wóolu woon mu leen di ñaanal mu am fu mu jaar ak ñoom diggante Côte d'Ivoire Cameroun ak fépp mais doo fekk mu ko tey ay immeuble yu fi Chérif bàyyi. doo fekk mukk ay bien yu yaatu mu fi bàyyi parce que lu mu am bokk na ak nit ñi ku mën dimbalee la ku gëm Serigne Touba la ku gëm Cheikh Ibra la ku mën dimbalee la te man xam naa si lu bëri ndax jaar nañu fu bëri kon ñi ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare ajana yàlla na ko Cheikh Mat Bamba mu mu yaakaaroon mu teeru ka yóbbu ko si firdaw si rasulullahi sallallahu alayhi